oui ah pour euh, confirmer li wax ça veut dire aujourd'hui ku ne xam na ne final moom duñ ko duñ ko féete avant koy jouer gagné ko ba pare et aujourd'hui Sénégal comme Maroc suñ ko waxee ak suñ aujourd'hui ñooy jéema a ci ci ci ci kaw donc suñu waxee rek mooy en terme de d'organisation et de représentation au niveau du, du football africain et mondial boo xoolee performance yi nga xam ne Maroc moom et puis Maroc fi ñu amoon ay jafe-jafe aujourd'hui ñoom ñu ngi fay ñu ngi fay ñëw muy petite catégorie bi parce que aussi ku xam ne xam ne Maroc amoon na ci ay jafe-jafe mais aujourd'hui comme li ma wax rek c'est les deux meilleures équipes mm-hmm. ñoo dajee en finale alors naturellement euh, li may wax tout à l'heure maa ngi koy wax et puis yàlla mun nañu ci dimbale man je craignais plus le Mali le Burkina que le Maroc quand même donc ma jàpp ne ñoom ñaar ñooñu mm-hmm. ce sera d'abord une parce que ay xale la ñuy tolloo mais aussi am nañu chance su senti que effectivement le Sénégal et devenu une équipe oui. compétitrice c'est-à-dire c'est important que nit ñi xam loolu njëkk ba style bi ñu doon jouer Sénégal ça a un peu évolué parce que bu njëkk ba on était plus ci ay football bu rafet et cetera mais aujourd'hui on ne ci football bu rafet mais dans l'efficacité aussi